alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala man lawlaahu lam yakun kullu kawnin id kaana ayna alkamaali fa huwa almuqaddamu xaqan fi lxalqi duna jidaali wa in taaxara baasan fafham li jamci lxilaali sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa saxaabatihi tayibin altahirin wa man tabiahum bi ixsanin ila yawmi ddin mbokki jullit yu tedd yi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 nuyoo bi gën a tedd gën a sell gën a sakkan muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di delsiwaat ci kartanal yàlla di sof ak yow rekk lima ma sosoon ak yow ci wàllu sëy yi waxoon naa kilifa yi. ak ñañ warta maye waxoon naa la kuy xarmal bul ko may bul ko may sa doom yow mi xarmal bul maye sa doom yow mi xarmal bul jigéen buñ la takk waxoon naa la sëyu sigaar te mooy échancé wante jox ma ma jox la te bu kenn joxe bul ci maye sa doom daganut waxoon naa la bul takk soxna ci bul maye sa doom ci sëyu contrat waaye tamit bul maye sa doom ku dul jullit bul maye sa doom kuy mbubboo ak tuub te mbubboo gi yëpp jot ci soxna si dong nga ko tax mu solab xaftaan ak yore kurus ak di logar lagar yi su boobaa neel naa la dugal négab góor rek seet ba xam ndax tuub ga wér naam déet bul maye sa doom koo xamee ne nii am na ñeenti soxna ah, bu ko ko def bul maye sa doom góor goo xam ne tamit fasekat la ku mu xam fase la yëpp dawal ko sa doom ji mu am ci nag sëy yoo xam ne bu takkuwoo xamoo walla xamoon nga lu ci aju firiwuñu sëy ba ba dee am lu ca lislaam di xatte day jara xam ci ab jullit ñaari xaaj rekk la xaaj bu njëkk bi mooy bépp sëy boo xam ne boroom xam-xam yépp dëppoo ca xaram ga suñ ko takkee wax dëgg yàlla dee amagut xam nañ ko nañ ko tas ndaw si dem laablu ji su ko defee bu laablu ga jeexee ke ñetti deret ya bu gisee jeneen jëkkër mën na sëy mooy bépp sëy boo xam ne xaram ga boroom xam-xam yépp ci dëppoo lu mel ni takk sa kojug nàmpaale la doon la ca la doon lu dagan waxoon naa la ko la cay lu xaraam waxoon naa la ko kii di jigéen gi la tàmpal nga takk ko walla nga takk doomam ji wala nga takk doomi jëkkëram ji moo xam ca moom la ko xamee wala ca yeneen soxna ya loola lépp sëy la bu ñépp dëppoo ak xaraamam nga takk sa kojug meen te mooy sa koju xarmante ki nga takk daal biñ ko càmbaree sa jarbaat la ki nga takk biñ ko càmbaree sa mbokk la wala sa doomi mbokk la bokk na daal ca fukki jigéen ak juróom-ñaar yañ mënta takk ya ca diine waraloon ya ca gorowaale waraloon ya ca nàmpaale waraloon ya ca askan waraloon muy ak jege ñaale bu mucc sëy bu mel noona kooka sëy la bu ñëpp dëppoo xaram nga fu ñu ko yëgee nañ ko tas ndaw sa dem laab lu ñu jàppee ko accident la woon suñ ko yëgul xamuñu ko lu dul ba dee xas am accident la nañu ndàmp soxna sa ci can ndàmp ko ci can waaye nag du téeñ yi du donn ndax maanaam sëy nekkut fa accident rekk la woon kon bépp sëy boo xam ne xaraam ga boroom xam-xam yépp ci dëppoo bu dee xamagun nañ ko tas su fekkee sëy nañu na ko dàmp jox ko can ndaw sa dem laablu yi su fekkee sëy nañu te yàlla dogal na dee am nañu door di ko xam moo xam ci nàmpaale ga la ca mbokkoo ga la ca ñeenteelu soxna ya lu ko hëpp la dem am juróomi soxnaak yu mel noona nañ ko tas te mu ndàmp ko ci jox ko can waaye moom du ténji du donn mu dem laablu ji su fekkee ne nag sëy la boo xam ne boroom xam-xam ya dañoo wuutee ca xaraam ga boroom xam-xam yëpp dëppoo wuñ ca xaraam ga waay waay su fekkee ne takk nañ ko dee amagul nañ ko tas bu ñu wéetee na ko dàmpee can su ñu toon nañ ko tas kenn ku nekk seeti sa morom dara xewut ci diggante ba fama lakum alayhina min du taatadunaha su fekkee ne nag xamuñu ko woon ba mujjit dee am ah ndaw sa nag dana donnu ndaw sa nag dana ténji lu mel ni ku xarmal takk jabar xarmal na nekk màkk ñi may ko jabar mu takk ko ca noona xamuñu ko waxuñ ca dara ba dee xam ñu door mbir xibaar ba door a siiw ndaw sa dana donn dana ténji naka noonu tamit koo xame na nii dafa nekk sa yëpp contrat ci la takk xamuñ ko woon ba mu dee ñi door di ko siiwal ah dana tonn dana téññi ndax sa yëpp contrat borom xam-xam yëpp dëppoowuñ ci xaram nga bu fekkee wëjhu sigaar la wala tarkib ba ca noona xamuñu ko woon wala xam nañ ko waaye bañ koy tas ak am na dana donn dana téññi kon daal dama bëgg a wax ne bépp sëy boo xam ne xaraam nga boroom xam-xam yëpp dëppoowuñ ci te bañ koy xam ak dee am na dana tonn dana dana donn dana tënji su fekkee biñ koy xam ak dee amagul nañ ko tas suñu wéetee na ko jox ak can suñu wéetut ñi tas ko mbir ma yem fa su ko defee su fekkee wéet nañu mu jox ko can ndàmpee ko ko soxna sa dem laablu ji ci ñetti deret ci koy gis deret su ko defee nag su fekkee ne nii soxna la soo xam ne nag sëy booba dafa xaram xaraam nga ñëpp ci dëppoo ni ki juróomeeli jabar mënoo koo andil texte ci yoo xam ne góor lañu wala bi maanaa sa sa ko jug xarmal sa ko jug xarmante moo xam ci nàmpaale wala ci askan ñëpp ci dëppoo wala sëyëb koo xamee na nii duhut ab jullit xéeféer la dem may ko sa doom ji dafa ne dafa tuub tuub ak arrangé ñi may ko sa doom ji yooya bu amee dee amagul nañ ko tas te ndàmp soxna si ci can comme yàq na marchandise ma su fekkee ne nag dee am na weetuñu woon nañ ko tas biir ma yem su fekkee dee amagul koon woon te te woon nañ ko tas mbir ma yem fa su dee amee te weetuñu woon mbir ma yem fa ñu tas ko amul lablu su fekkee wéetoon nañ timit te dee am na nañ ko ndàmpee ak can mu dem laablu ji lii moo cay àtteeb lislaam ci sëy bu ñëpp dëppoo xaraam ga ak sëy bu ñëpp dëppoo ñàkk xaraam ga beneen bi nag mooy koo xamee na nii ahlu kitaab la di ab yahud ca waxin wala nasaraan yàlla dogal mu amoon i soxna benn la ñaar la ñett la tuub na dugg ci lislaam soxna ya tuuba ak moom ñu dugg ci lislaam nañ leen bàyyi seen sëy ba ca noona duñ ko takkaat jaru takkaat nañ ko bàyyi noona rek ñu continuer sëy waaye su yàlla dogalee soxna yaa tuub waaye jëkkër ja moom tuubut ah su boobaa nag moom dañuy tas sëy ba ndeem duguñu woon ay jullit comme daal jëkkër jaat maanaam soxna yaat tuub jëkkër ja tuubut ah ab jullit nag moom kon dañ koy tas kon su fekk moo xam ay jullit lañu woon moo xam nasaraan ndax ab jullit bu jigéen ab xéeféer wala ab nasaraan mënu koo denc su fekkee ne nag jëkkër jaat tuub te yàlla dogal na jigéen ña jabar ya ahlu kitaab lañ wala ñoom euh, ci ahlu kitaab lañ mën nañoo bàyyi sëy ba mu continue noona ndax maanaam ab jullit mën naa takk kitaabiyatu comme ni ko Usmaan takkee woon na ab yahudiyatu mu tuddoon naa ilatu te loola sëy booba dara newu ci woon su fekkee ne nag maanaam tuub na moom jëkkër ja moom euh, moom moom jabar ja tuub na moom jëkkër jaa tuub te jabar ja moom tuubagut ñi dem a dem ba ci kanam mu door di tuub njëkk yedda jay jeex ci la tuub ba tey rek dañ koy delloowaat soxna sa seen sëy ba continuer su fekkee na ba muy tuub ak moom jabar ja fekk na yedda ja jeex na ba pare muy door di tuub kon sëy ba bàyyi na tas na dañ koy takkaat takk gu bees waaye duñ ko ko delloowaat loolu moo daloon abiyaas yi ci Zeynabu na bu jullit la di doomi yonantu bi Abi yéeféer la woon te njëlbeenul lislaam man ngaa takk yéeféer mën naa takk ab jullit waaye gis nga keroog keroog xare Badar ba mu tuubee waaye fekk nag euh, ba mu tuubee rek euh, maanaam ba dekkara ba wàccee rek sëy ba tas seen diggante yàlla dogal nag maanaam sëy euh, na bu commencé yedda ñu ne afa yedda jay jeex ci la Abi Aasi tuub ñi delloowaat ko soxna sax ñenn ñene ba muy tuub daal yet dajaa jeexoon na ba pare dañ koo takkaat waaye lu ci mun di xam daal delloo nañ ko ko ndax delloo ga nag njëkk yet daja la te kon jarut takkaat wala gannaaw yet daja la kon dañ koy takkaat loola moo am werante ci ulamaawu siira waaye delloo ga ñëpp d'accord nañ ci kon nag wax naa la sëy yaa ngoog ci anam yu ma la ko waxee ci ki tuub ki tuuba ndoor ak jabar ya ki nga xam ne tamit dafa jabar yaa tuub ak ki nga xam ne jëkkër ja moo tuub su ko defee kon nag waxoon naa la ko tamit ca kilifteef ga ma waxoon la ne la kilifteef ga ca wàllu um, gaño ga lay doon waaye du mën a nekk ca wàllu mm, meel ma su ko defee kon nag ñaareelu ñaareelu ñaareelu ponk bi lay dugg ak yow rek te waxoon naa la sëy ñeenti ponk la maa ngi woon ak yow nag ci benn ponk boobu yëpp tam moo doon kilifa ga tey nag damay dugg ak yow ca ñaareelu ponk ba te mooy can can de mooy li ñu yëkkati rek te man koo jariñoo mu nekk lu laab lu sariya nangu jullit moom ko ñi jox ko soxna sa loolu de mooy can bu dee xaalis baax na lu mën a remplacer xaalis di marchandise baax na moo xam ay portable nga ko canee seeni or nga ko canee ay xar walla bëy nga ko canee sa yëkku gétt wi nga ko canee sa fas wi la walla sa kees ak seret gi la nga ko canee yooyu yëpp charia d'accord na ca moom la alquran di wax ne wa aatu nisaa saduqaatihinna nixlatan kooku ma nga ca suuratu maanaam nisaa yi kon loolu mooy can su ko defee nag can googu euh, gannaaw bi ko alquran saxalee somba lu mu war a doon ci la boroom xam-xam yi werante somba moom can moomu su fekkee ci Malik la dafa ne daal moom mooy lu tolloog ñetti dërëmi yoon wala mu nekk genn wàllu dinaar genn wàllu dinaar mooy ab dinaar boo ko xaajee rubuxu dinaar laa bëgg a wax mooy genn rubuxu dinaar mooy ab dinaar boo ko xaajee ñeenti xaaj benn xaaj ba mooy tolloog ñetti dërëmi yoon loola la ñuy canee soxna yi lu tollook loola nag ci marchandise mu mën a doon moo xam ci ñam la moo xam ci juri kër la moo xam ci pàkk la moo xam ci marchandise la moo xam euh, ab jaam la walla gëléem la demeet yu noonu yëpp mën nañ caa canee la ca aju kon loolu mooy nekk loola su ko defee kon nag ñett dërëmi yoon wala ak dinaar loolu nag biñ ko xaymee gam-gamle ko ci suñ jamono jii daal la gën a jamtalu gën a wóor mooy ñetti junne jëm ba ñeenti junne junne daal moom daal mat na can nag su ko defee ndax dañ doon wax ne benn dërëm ab yoon euh, maanaam rubu' dinaar bañ dévaluer gut xaalis bi dafa daan tollu ci sept mille francs six mille francs côté yooya bañ ko dévaluer nag quinze mille jëmba vingt mille soo defee vingt mille daal def nga li gën a wóor te mooy la gën a bëri te jan nag bëri du ko yàq su ko defee nag waaye tuuti nag muy ñàkk mat ga dana ko yàq can googu ñaari xaaj la dafa ci am xaaj boo xam ne àq yàlla la am ci xaaj boo xam ne àq soxna si la ak xiyaar la mooy loo xamee na nii lu la soxna si bëgg-bëgg mbokk ya bëgg la ko kenn mënu koo wàññi loola mooy rubu dinaar bu jëlee dinaar bi xaaj ko ñeenti xaaj benn wàll ga ñi di ko gam-gamlee ci ñetti junne ñeenti junne su ko defee nag booy booy joxe joxeel ñeenti junne rek mu gën a xóor mu tolloo ñetti dërëmi yoon boo demee la di wurus nga laaj leen fu diinaar bi toll soo leen ko laajee boo ko gam-gamlee da nga xam fi mu toll ci or bi boo ko gam-gamlee da nga xam boo ko wàccee ci xaalis bi li mu tollu ci CFA bi su ko defee kon loola mooy cam di àq yàlla ja la ca teguwaat nag muy ñu koy tuddee waru garak dantaay baayak dantaay maamak dantaay yaayak junneem nangamak sikkitam ma kuñ koy bàyyaleeg ka ca jaar rek moo ca moo ko xam ku ca jaar dong moo xam loola xam naa ñu bari ñi may wax te dégguñu ko duñ ko duñ mën a xam la ca nekk. su ko defee moo tax am na ci ko ca duggoon lool ngoro ga metti ñi sonal ko lool ca sëy ba bu wallaahi mu sonn ca lool moom daal laaj nañ ko sareetam mu joxe ko laaj ko peeru nagam bi mu joxe ko laaj ko façon bi mu joxe ko. miiraas na boppam ay mbokkam miiraas boppam ñu door di ko jox soxna sa soxna sa ñëw di sëyee dama seer liñ def ci man lu bari la jabar ja jëkkër ja di ko xoolee lu seer laa def ci yow kon li ma bëgg rek ngay def nag fu ma la xem loolu ngay xemale su boobaa nag loolu safara la ak ñax lu leen di boole day yomb dinaa ci ñëw moo tax sëy yu seer yu bari duñ mën a continuer jabar ja day sëyee dama seer jëkkër ja di seere di di ko di ko xoolee ba tab xaalis bu weex tàll laa def ci moom kon li ma bëgg rek lay def su boobaa lu leen boole day yomb loola nag dal waaja sëy ba tas ndeysaanam ba sëy ba tasee mu toog lu yàgg yàgg nangut a takkati soxna ndax dafa metti mu xaar ba guddi rek ndeysaanam bu war a bëgg tuur ndox ba mu waree tuur ndox rek ci wanag wi ba muy tuur ndox ba ca digg ba rek dégg ay woyi séet mu mu dagg tuur ndox ma ne ku mel nii de lu mel nii lañ ma indiloon sama kër gi mbaadu musiba mi dañ ma ko bëgg indilaat dagg tuur ndox ma rek gaaw duggaat ci biir néeg bi tëj ko moom daal noonu la noonu la continuer tijjiw tijjeekuwaat ba bër set dafay ragal mu ne ñu indilaat ko lu mel ni lañ ko indiloon waaye séet yi muy dégg daal dafay fa ne moom lañ koy indil ma ne ndaw ko féex su ko defee kon lu ci mun di am daal àqi euh, ndaw si mooy la tegu ca gannaaw ñetti junne ya wala mu tegu ca gannaaw ñeenti junne ya moo xam un million nga indi woon moo xam télévision nga ci tegoon moo xam ceeni or nga ca dolleekoo moo xam cinq cent mille rajo baag la ci aju yëpp loola lépp daal aqi ndaw sala su la bëggee nga rotal ko bu la neexee rotal ko waaye aq yàlla ji moom manta mankiru bon dinaar lu la ndaw si bëgg-bëgg boo ko joxewut sëy amu fa mooy yàlla rek a fa ne moo tax kon faw ñu joxe can ya ca ca jàkka ja wala ca jumaa ja wala fu ñu takkee sëy ba loola nag amul amatul leb nag wax dëgg yàlla dafa yomb ñett junne loo cay lebati yow ilimaan yi bul nangu di takk sëy bu ñuy leb can nga ndax boo ko leblee duñ ko fayati bëri na jigéen ñu may déglu ñu bëri seen jëkkër ya ameel nañ leen can ba tey fayuñ leen ko noonu lay continuer ba dee duñ ñi fay ko buñ ko xamoon sax ñu man koo génnee ca alal ja ñu fay ko ba pare bala ñoo miiraas waaye àq la ju muy yóbbu ca bàmmeelam ba moo tax kon daal nañu matal can yi ba mat sëkk bala ngaa takk sëy bi yow ilimaan ji bul ca nangu ak leb dëgg-dëgg yeneen warugal yaa xumbaay yaag caaxaan yi lañ ca yàq genn wàllaati genn wàll nga demul ca can nga kon na can nga mar rek donte nag ci fukkaawu yi daganal nañ na leb can sib nañ nag leb lépp leb lépp nag moom sib nañ ko waaye leb ca nag wax la ca des kañ nga koy fay wax diir ba te diir ba bëgguñ mu mat juróom fukki at ñeent fukki at ak juróom baax na ñeent fukki at ak juróom-ñeent baax na waaye liñ bañ mooy mat juróom fukki at waaye bu ko matee jëm kaw sëy ba baaxut kon ndax day yàqoo ca wàllu can nga ndax nag bokk na ci xikmatu bi tax ñi bañ koo takk soxna dundati ñeent fukki at dundati kon juróom fukki at wala soxna sa dund juróom fukki at yéen ñaar ñëpp yombut de li ko waral nag kon kuy datee bor ci waxtu woo xam ne bàyyi woo xel mu fekk la fa wala yaakaaroo ko wala yaakaaroo mu fekk ca ka nga koy war a fay li muy tekki rek mooy bàyyi woo xel fay bor booba moo tax fukkaaw yi ne juróom fukki at daal jëm suuf waaye daal bu matee juróom fukki at jëm kaw rek la ngay leb nga wax ko ca doola daganut kon léegi nag jamono jafa soppeeku can yi jëratul lebat yi la ñuy yàq ca alal ja ëpp na téeméer ju ne yoon can nga kon nañ joxe mu mat benn yoon rek can nga kon wax naa la somu can nga ci wàllu woowa di rubuxu dinaar rubuxu dinaar boobu nag di som boobu wala xaymaay lu toll loola loolu mooy li gën a néew ci can nga xam ne sëy mënta wér mukk mukk mukk ci lu dunut loola fokk maanaam ñi teewal loola joxe ko donte lépp ca dagan na lépp ko timit maanaam timit dagan na su ko defee kon loolu mooy can gi euh, loolu timit Malik euh, da koo xiyaas rek ci euh, maanaam alquran alquran ba alquran jeex rubu dinaar la ñuy canee amu ci ba tey tamit boo koy seet ci sunna amu ci waaye mu ngi ko xiyaasee ne alal daal ju ju al ju lislaam kontewu mi ngi commencé ci fi ñu daggee loxob sàcc li ngi daggee loxob sàcc nag mooy rubbu dinaar sunu saxal na ko moo tax bi al alquran ne wassaariqu wassaariqatu faqta'u aydiyahuma ñu ne kon nag Maalik ne kon lu ñu daggee loxob sàcc mooy rubbu dinaar kon nag loola ci la xaymay xaalis ba commencé kon rubbu dinaar la ñuy daggee loxob sàcc rubbu dinaar tamit la ñuy canee soxna yi moo tax kon amul limite foofa la moo tax Maalik moom Maalik moom foofu la ko kal rek bàyyi ko fa bu yaxana fi yu na yi dañ ne daal can daal amul lim loo jox soxna si lu tuuti tuuti namu ca can rek mu nangu rek can la donte big bi ngay bindee nga ko jox baax na boo ko joxoon benn portable nangu ci can baax na buy 1000 francs baax na buy 500 francs muy can gi baax na xana fi yu na yi loolu lañ gëm loolu nag Malik wax naa la fi mu sukkandiku moom rubu dinaaram bi boo ma dégloo ma wax la nag ñee fu ñu sukkandiku ñoom tamit seen lu tuuti loola ñu ngi ko sukkandiku yonantu bee toog xadis la buxaari yoog muslim indi nañ ko yonantu bee toog ci benn place rek benn jigéen gu bëgg lu baax fekk ko mu toog ne ko may naa la sama bopp yonantu bi ndeysaanam bëggut a tas yaakaar yi ku ko yaakaar kersaga mu sëgg ndaw sa taxaw rek may naa la sama bopp yonantu bi sëgg rek ndeysaanam ak kersaga bëggut a tas yaakaaram te yëg na ne dëgg dëgg lim daal foofu la mën a xem te tamit foofu lañ ko xemale te wax naa dañ ko limité woon moom ci euh, quantité ci qualité lañ ko limité ñun ñi limité ñu ci quantité su ko defee nag moom nag limi limitation ba yem na foofa nag moom moo tax nag mu sëgg rek ndeysaan ak kersaga foofu rek nag ah, benn góor ak siise siise gu bëgg lu yomb ndeysaanam rek euh, dee yonantu bi ne ko su fekkee jékkuwoo rek man jékku naa nga bamax ma ko Ah, man daal pare naa ngir yonent bi nokkiwaat santaat yàlla bu baax ci siise siise bi pare ngir dëggalal ko yaakaaram li léegi nag mu ne ko konkat alhamdulilah nag utal can nga jox ko mu ne ko ma dara ñàkk cana ma tax bëgg lu yomb lii moo tax may may nëbbutu fii di bëgg lu yomb mu ne ko utal sa yére bi mu ne ko benn yére laa am bu demee ba tilib guddi laa koy fóot di ko jonkanu di ko tërlu gaaw mu waw rek ma man koo gaaw laxasoo ko mu ne ko waaw ndax timit amuloo dara dara mu ne ko tus laa amut lu ma mën a kenee uma ko yonent bi di ko laaj ba ne ko walaw xaataman xadidat donte amuloo jaaroo weñ gu ñuul sax jaaroo weñ gu ñuul amoo ko mu ne ko awma ko xam nga nag jaaroo weñ gu ñuul nag wax dëgg yàlla prime du dara cent franc fukki dërëm cinq cent franc gën caa bëri ñu ne kon yonent bi ne ko amoo dara mu ne ko déedéet yonent bi ne ko jàngal ko ñetti saar yi gën a gàtt ci alquran def ko muy cam ga xana yu na yi nekkoon daal comme laaj na ko ne ndax amuloo jaaroo weñ gu ñuul mu ne déeréet te xam nga ne bu amoon jaaroo weñ gu ñuul mu may ko ca ñoom ci loolu lañ dëgg nekkoon can lu mu tuuti tuuti ba mel ni jaaroo weñ gu ñuul ñàkk xayma daraja ba nekk seen ak plaqué wala seenu xaalis yi nga namu ca can dana nekk can loolu lañ gëm moo tax nag yonent bi loolu la ko laajoon mu laaj ko la gën a yomb amu ko bañ mujj daanoo ci li gën a cher ndax mooy ñetti saari alquran kenn dafa am pireem benn baata alquran la ko jàngal nga weexalee ko juróom fukki milliards taxut nga fay ko moo tax kon yonentu fa ko laaj li gën a yomb mu ñàkk mujj daanoo ci li gën a cher te mooy jàngal ko ñetti saar ci alquran kon loola maanaam moom la mujj nekkee ko can nga moo tax léeg-léeg nga gis ku ciy canee kaamil al alquran doonte kaamil ci yomb ak baaxal ak yàlla ak jàppandal téeréem bi ak yoonu wattu ko dem na ba kaamil yomb bay jar téeméer kaamil yomb bay jar mille francs boo gisee ku ko def kon lu tuuti mu koy xeeb mu koy canee bu ko weddi am na fu mu ko teg foofu mooy teguwaayu ñi wax ne can lum tuuti tuuti baax na donte ay dàll la soo ko doon dëppale na wax ne li xanafi yu nay wax daal moo gën a arrangé góor ñay takk waaye nag li maaliki yu na yi wax nag moo gën a arrangé jigéen ña ñuy takk ndax jigéen ña ñuy takk nag na mu gën a bëree bëree bëree lañ lay jox mu gën leen a arrangé waaye nag bu fekkee xanafi yu na la gën a tuuti la ñuy joxe mu gën a arrangé ñee takk waaye nag loolu daal moo gën a dëppoog jamono ji ci rang rang bu seere bi kon nag nañ gën a yombalee can yi rek maanaam mu gën a baaxati loolu mooy gis-gis. kon can lim amul limite tax maanaam Omar xataa bi mu ñëwee bëggoon na koo limité xiyaas ko maanaam ci yonantu bi lim takk soxnaam yi ak lim maye doomam yi yonantu bi soxnaam yi mi ngi leen maye mi ngi leen takk ñoom ñëpp ci ñeenti téeméeri dinaar euh, saawu dinaar ci la leen takk su ko defee kon ci juróomi téeméeri dinaar laa bëgg a wax ci la yonent bi takk soxnaam yi waaye tamit ci loolu ci la maye ci la mayee mi muy saa u niir ci loolu maanaam ci la ci la maye doomam yi ci la takk euh, soxnaam yi léegi nag euh, bi mu ko Omar nag bëggoon a limité can yi ci loola ñeenti téeméeri dinaar ñeenti téeméeri dërëm ak euh, maanaam mu tolloog loola ba mu ko defee nag Euh, ba mu ko waxee taxaw benn bis def discours ci minbar yi jàng ba pare waaraate nag na nag daal can yi seer na bis ni ki tey daal dama bëgg can yi ñi koy yemale ci la yonentu bi takkee woon soxnaam yi ak la mu mayee woon doomam yi ba mu waxee loola rek benn jigéen gu mën jàng taxaw ne ndax am naa ci kàddu ñu ne ko waaw waaw bu ko defee nag mu jug taxaw laaj kàddu ne Omar ndax jàng nga alquran mu ne ko waaw ndax seetantal nga ko bu baax a baax bu ne ko ci fan mu ne ko xanaa seetlu na ne yow yàlla fa ñoo bëgg may nga bëgg ñoo foo ko teg jàngoo alquran ne wa in arastumu wa in aradtumu istibdaala zawjin makaana zawjin wa aataytumu ihdeehunna qintaaran fala taaxudu minhu shay'an qintaar la alquran wax di qintaar da ngaa xam ni mu toll mooy xalal ju bëree bëree bëree bëree bëri ay millions yu bëree bëri mooy qintaar yàlla ne su ngeen takkoon soxna yëkkati woon alal ju bari def ko ca yàlla dogal sëy ba yem fa nga bëgg a indi beneen soxna pour remplacer ko waaye waaye la nga laajoon soxna sax la nga ko joxoon bu ko ko laajaat di ko jéem a xoñoñal di ko jéem a euh, xiisal bëgg mu ñaan la baat na nga xam ne buy dem du yóbbuwaale dara ba nga mën koo laaj wala nga mën koo bàyyi mu mën faa bàyyi bagage ya loola xaraam na la ngeen lekkoon bu leen laaj laaj ca dara sàmm leen kóllëre ga fa jaaroon ci seen diggante ah bi Omar nag jigéen gi jànge aaya ji Omar wàcc min barba ne yéen nit ñi man mi maa leen bëggoon a tere ngeen yokk can yi bu mu yokk bu mu xëppati mukk ñeenti téeméeri dinaar waaye man nag jeexal naa ca bis ni ki tey loolu daal génn naa ca kon gis nga ko ku mu neex daal na jeex na seet la ko neex ju soxna su muy takk mu bàyyi ko ca loola loolu nag moo fi nekk ba léegi moo tax nag mu bàyyi can nga ci kem man-man yi bàyyi can nga ci kem xememtéef yi nu sa man-man toll rek sa am-am toll ko nga def ko ca soxna yi bu ko toll na nga mel tamit nga man ko ci li yunfiq du saatin min saatihi wa man qudira alayhi risquhu fal yunfiq mimma aataahu laa mu dugg ca loola waaye man-man yooye nag nu mu gën a tuutee gën a baax euh, soxna yi loo ca gën a fere mu gën a tuuti rek moo gën a baax ndax mooy gën a barke maanaam sëy jigéen gu ne la ñu fere ci moom la mu gën a tuuti boobaa sëy ba gën a am barke kon ñaari njariñ la nekk soxna si boo ci feree lu tuuti bu sëy ba continuer am barke bu sëy ba continuer wut neex a fay waaye su fekkee da nga caa feree ay millions yu dul jeex bu sëy ba continuer du am barke bu sëy ba continuer wut kenn du ko mën a fay mbokk ya dagale lu nañu jëf ko ca moo tax loolu léegi nga gis soxna soo xam ne alal gi sa nekkoon dafa bëri ba ëpp tas na waaye ku ko ku ko bëgg a takk rek ñu ne la alal gi ci nekk rek nga mujj wanewaat gannaaw ba mujj soxna sa jaaree ca lambu fu mujj gi loola moo ci mujj nekk lu koy waral kon mooy can yu seer moo tax yonent bi daan wax ne azamu nisaa yi baraka ay sara unna ma una mbooleem soxna yi bi ci hëpp barke mooy soxna soo xam ne la ñu def ci moom vraiment moo gën a tuuti lañ def ca moom moom dafa tuuti kon nag maanaam can yi jër ta seeral ndax bu tuutee bu continuer barke nekk ca bu continué wut neex a fay te nag barke du jëmm waaye jëmm jum nekk maanaam ñu xam ko kon nag can yaa ngoog wax naa la ko ak li ci aju can googu nag maanaam ci soxna si fekkee soxna si dafa nekk soxna soo xam ne euh, sëyagu leen su baa nag can gi ni soxna si bëggee rek noonu lay doxee comme say amagut sëyagu leen daal na soxna sa bëggee rek waaye nag soxna si nag bu ñàkkee fulla laajut ak canam wala matluñ ak canam ba mu xas euh, sëy nag ah moom nag dootul amati kàddu cent pour cent waaye nag soxna si buñ ko yonalee can un million wala téeméeri junne yàlla dogal sëyagu leen sëy ba tas genn wàllu can nga nga koy jox muy deux cent cinquante mille wala cinq cent mille ba ca un million ba nga perte loola su ko defee kon loolu nga koy jox euh, moom nag du ca yedduwante du du ca defante dara mu jeex su fekkee ne nag da ngeen a xas sëy ba pare nga wéet sëy ba door di tas ah dana dem mu yeddagu ji boole kook nga mottali canam nga ba mat sëkk nag ndax kat yàq nga li ñuy wax marchandise ma kon moo waral kon lislaam diina ju màndu la bàyyiwul dara lépp lu ca nekk rek dafa koy wax ba mu leer nañ ñi su fekkee ne nag soxna saa ngi nii ah, may nañ ko jëkkër yàlla dogal sëy baa nga fa ñi may ko jëkkër ji rek ndeke jëkkër ji dafa euh, bagaas ya daal baaxut du ñu tuddee yoom dafa yoom mënta sëy lépp lislaam du ko négligé kon day wax ne nañ ko muñal at nañ ko muñal at su ko defee mu dem jéem a faju ji bu at ma jeexee yàlla dogal mu wér sëy ba continuer dem su yàlla dogalee at ma jeex te ndax maanaam jëkkër ja wérut ma nga continuer tële ga rek su boobaa jabar ja lañuy laaj ndax neex na la bu la neexee ñi bàyyi fi sëy bi nga bàyyi fa ak moom tural ko muy continuer di faju bu la neexee tay tay nga tas sëy bi doo ca jo doo maanaam dara du la ca fekk doo ca am benn bàkkaar euh, su ko defee kon nag suñ ko tasee nag comme mën na at nag danga ko jox can gu mat sëkk ndax yàggaay gaa tax te moom jàpp na la boppam waaye yow gi yaa mën yaa mënta dem rek ci moom waaye nag su fekkee ne nag jigéen la goo xamee ne nii da nga doon sëy ak jëkkër ji yàgg ngeen a sëy euh, doola sax benn yoon rek la ànd ak yow yàlla dogal mu tële manta mën a foofu moom amul diiral bàyyi ko mu dem faju ji moom moom foofa duñ la wax na la diiral ko ñaari weer ak ñetti weer ak nangam ak nangam sa jëkkër a feebar rek nag goreel ba mu feebaru toon ma ma ngi doon def ci lam man feebar na léegi nag bàyyi ko te nga suturaal ko mu dem faju ji bul taxaw naan damaa bëgg a génn tey tay ci sëy beeg wala ñaari weer dama cay génn ak nangam ak nangam déedéet li ñuy wax ne dañ lay diiral at daal mooy ku mën a gut mën a tutoon ñu takk sëy bi rek yàlla dogal ndeke moom daal mënu mën naa am dañ ko takk xalaa mu jaaree fa tële mën a tut dara mën ba mënta sëy ak yow nañ ko may at di ko xaar mu dem faju ji bu wéree baax na sëy ba continuer bu wérut sa tëj sa soxna sa d'accord sëy ba continuer bu soxna sa d'accordul sëy ba tas waaye yor jëkkër ji mënatul dara te mu bëri lool ci jamono ji góor ñu bëri maanaam tabaarakallaahu euh, feebar boobu gaar na leen ak tële su boobaa nag la cay tegu mooy soxna ya ñooy gore su ko defee tamit jëkkër ya dem jéem a faju ji te xam ne ba ñuy wér dëgg-dëgg nag manoon nañ waaye comme ne mënatuñu nag yow tamit da ngay gore ndax nag ànd ak ku man ku ne mën na ko waaye nag ànd ak ku manadi kooka la ñu jàppee nag mooy ku gore ku baax koo xam ne ku màndu la kon nag atte yaa ngoog wax naa la ko ci tële atte wax naa la ko tabaarakallaahu ca faju jëga ak lépp loo xam ne nii aju na ca ak ba ñu takkee sëy ba te fekk maanaam wéetaguñu mu far fase ko ak ba mu wéetee ba pare mu door di ko fase lu ca nekk lépp tabaarakallaahu wax naa la ko kon can yaa ngoog ak lu ci aju kon nañ góor góorgóorlu ci can yi képp koo xam ne bi ngay takk soxna yëg nga ne yoreel nga sa jëkk sa jabar can demal nga gaaw mottali naka noonu tamit soxna si su fekkee jëkkër ji ameel na ko can na ko gaaw leeral même su fekkee dafa dee bala ñoo donn na wax ne ameloon na ma sama can gi nangam wala ameloon na ma ki dépense nangam ameloon na ma nangam ak nangam ñu jël bor ya fay ko doora miiraas alal ja wa qabla irsin wafa u dayni yatbauhu tanfidu muusan ala tajhisihi awala yooyu yëpp ñu bàyyi ko ca xel diine kenn du ko foye su ko defee kon nag atte yaa ngoog waxagum naa la ñaari ponk eh, ñetteeli ponk bi nag moom eh, du bëri mooy rek seede seede eh, maanaam ñaari gor góor lañ mësoor nañ am nañu xel maandu nañ buñ ne maandu nag mooy mucc nañ ci bakkaar yu mag yi ñu ci waaye tamit mucc nañ ci bàkkaar yu mag yi te nuuruñ ci bàkkaar yu ndaw yi kooku la ñu tuddee ku maandu moo war a tee maanaam seede sëy ba nga woo ko ne ko sama doom ji may naa ko nangam ak nangam ba mu leer nañ ci ci kanamam euh, su ko defee suñ mag ñi nag ñoom dañoo dégg diine ñi far rek jël seede ga di ko defee ca jàkka ya ca jumaa ya place publique ya su ko defee mbooloo ma seede ko su boobaa moom bu ñëpp maandu xut tamit am dana am ñu ca maandu ña ca maandu ñooy dugalaale ñu maandu xut ña ndax maandu dafa jafe ci ji jamono far ñu defee ko rek ca mbooloo ma sëy boobu nag kon foog mu am seede loolu la Malick gëm Malick nag mu ci gën a yombale mu ne bu fekkee takk nañ sëy bi te fekk amul seede baax na waaye bala ñoo wéet faw ñu wutal ko seede bu fekkee xanafi yu na yi la xanaabiluuna yi la saafi yu na yi la ñoom de dañ ne bu ñu takkee sëy te amul seede sëy ba yàqu na demagul fenn dañ koy tas foofa demagul fenn fokk mu am seede sëy ba door di mën a takku buy Maalik nag mu ne sëy ba wér na donte amul seede waaye bala ñoo wéet nag faw ñu wutal ko seede kon seede ngoog alquran wax ko ci wa ashhidu zaway adlin minkum yonent bi wax ko tamit laa nikaaha illa bi shahiday adlin wa waliyin murshidin kon loolu maanaam mooy mooy maanaam seedeeg sëy bi ne yonentu nee na sëy mënta wér ci lu duhul ñaari seede yu maandu ak kilifa goo xam ne gu ñor la xel ma baax na mu ngi mën a gindee kon yooyu boo xamul rek sëy ba mën a wér su ko defee kon nag euh, wax naa la ko ci seede mu des nag léegi siixatu muy baat buy tekki ma maa ngi ñaan ak baat buy tekki may nañ la dañoo bëggoon booy ñaan soxna yow jëkkër ji yaa war a teew ca jàkk ja ilimaan nag ña fa nekk yëpp teew si ngay xamee importance su sëy ba su ko defee na boo teewee ñu ne la ñaanal yow jëkkër ji nga jàng faatiha yomb na soo paree julli ci yonantu bi julli goo man baax na su paree nga wax ci sa làng woo man ne man mii euh, man diw di Modou Cissé may ñaan maanaam faatu Cissé di ko ñaan baayam ci farataak yàlla ak sunu su yonantu bi ci can gii nga xam ne moom ngeen ma waxoon muy can nangam maa ngi koy ñaan di ko seedeloo jullit ñii teew fi bu paree tamit moom baay jooja taxaw jàng fatiha julli ci yonum tubeeg lu man dara ci ay ay alquran yi yaa ay wàll seen yaa nas taqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waahida ak yu mel ni moom su paree mu ne man mii may naa la yow Modou Cissé may naa la sama doom Fatou Cissé ci farataay yàlla ak sunu si yonumtu bi ci can gi nangam su ko defee tudd ko ci seedey jullit ñii ndax nangu nga nga ne nangu naa ngeen joxante loxo sëy ba wér boobaa nag sopp nañ bu pare ilimaan ja xutba ci alhamdulilahi nahmaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruhu ci lay nekk ba xutba ga jeex waaye bu ko defut timit yàqu dara ci sëy ba lii lañ bëggoon su ko defee yow jëkkër ji nag nga teewee ko mooy tax nga xam importance su sëy ba bu liggéey bu la sa jëkkër sa jabar waxee lu la naqari rek nga xalaat bi sa takk baag jumaa jaag tasaare guru yaag ilimaan jaag nangam ak nangam ak bisa ba ñu delloo guru yaak nangu sa guru gi rek sa tension wàccaat nga mën a hmm. muñ waaye nag maanaam fekkee woo fa ñu takkee xamoo ñan la nga taxaw rek ñëw naa saa waaye may nañ la jabar nga ñetti baat ñeent nga fase ko xamoo importance ba dañoo bëggoon ki ñuy maye ak ki koy may yépp teew ni ko suñ mbokki naar yi defee moo tax ñoom sëy gaawut faa tas ko caaxaanee waaye ñun nag dañuy foyee sëy tabaarakallaahu kenn teewul te ñoom xamuñu importance su takk ga kon su boobaa du ñu xam importance su lu ñu leen takkal ak li leen takkee nañ koy war a toppatooxee ak nañ koy war a sàmmee ak nañ koy war a yéwénalee dafay des maanaam ca wàllu woowa kon nag siiratu bàngoog ak li ci aju wax naa la ko xam naa nag boo ma toppee suba ci waxtu wi dinaa la wax yeneen ni sëy yi nga xam ne tamit nag charia dafa am lu mu ciy bañ muy nikaaxu sirri sëy bu ñuy nëbbu xam naa kuy ñaareel ragal aawa ba moo koy def wala taf tafwid may naa la sa doom ji rek ñu ne may naa la sëy bi tudduñ can yaag li ci aju ba mën a xam lan la ñaata la yooyu yëpp nag su ba del siwaatee danaa ci wax waaye tamit danaa wax ci yow euh, bu nit ki bu sëy yàqoo te yàqoo buy yàqu moom ñaar rek la mën a yàqoo benn mu yàqoo ca wàllu can nga wala mu yàqoo ca wàllu pas-pas ba buy ca wàllu can nga moo gën a xoyof ñu mën koo defar bu yàqoo ca wàllu pas-pas ba te mooy wàllu kilifa ga foofa moom day xaw a compliqué boo ma toppee suba incha allah danaa sof ak yow ci wàllu woowa ba moo gën a leer yàlla yàlla yóbbu ñu ci defal ñu tawfiq defal ñu taysiir wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.